mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw ba ñu ubbi ci turu sunu boroom subhaanahu wa julli ci yonentaam yu tedd yi seydina limaamu laay almahdiyul muntazar seydina isaa roowa laay aleyhimu salaatu wasalaam ñoo ngi nuyu di ziyaare di ñaanal sunu xalifa xalifatul am li taifati laayeen Chérif Mouhamadul Muxtaar ibnu ma Mandione saahibul kiram ñoo ngi koy ziyaar di ko ñaanal sunu boroom guddal fanam may ko wér oyofal yanam sunu boroom taxawu ko jàppale ko jàppale it mbooleem ñu koy jàppale fu nit nekk te diine rekk tax laa jóg yal la yàlla defal ndam ñoo ngi nuyu tamit di ñaanal ahlu bayti rasul gi yépp di jël nuyoo bi di ko teg si loxo muhammadul amin ak rakam yu teddi muhammad mam libas imam muhammadul muxtaar muy nuyoo njabootu seydina limaamu gi yépp yàlla na yàlla sunu borom sàmm leen aar leen li yonent bi wax du dañ bi nee na asamaan bi biddéew yi nga siy gis dafa dina dox ñaar bi si njëkk dina taaral asamaan bi bu guddee ba biddéew yi takk génn mu ne day rafetal asamaan bi ñaareel bi mu ne day sécuriser asamaan bi tamit sécurité la inna kunna naqudu minha maqaida lissami fa man yastami l aana yajid lahu shihaban rashadan hmm? yonent bi nag nee na biddéew yi taxawaay bi ñu am si kaw asamaan sama njaboot taxawaay googu la ñu am si kaw suuf dañuy taaral suuf dañuy sécuriser suuf kon fu ñu toll di leen ñaanal suñu borom bàyyi leen fi guddal seen fan ahlu bayti rasul ñu ngi nuy daayira bi yëpp sëriñ Keer ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi nuy soxna aram laay ñu na yàlla fay leen si tënk rek arab yi dañu wax ne li kulli makaanin maqaalin araba wax loolu olof nag daal di koy feelu <laughs> daal di wax ji tënku ko ci ñaari baat olof nee na lu xew lu xew waxu lu xew rek waxu te dafa am luy waaj a xew ci réew mi daa am luy waaj a xew ci senegaal munaasaba bu mag événement bu rëy muy cent quarante cinquième anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Mahjul mu war a am le 30 ak le 31 janvier 2025 sa Cambérène ak Ngor ak Yoof yal si yàlla yóbbu ak jàmm yàlla bu ko kenn manqué yàlla bu ko kenn tardé muy woote bu rëy xam nga wax naa leen ne ku xëy xool sa portable gis ci vingt appel manqué wala cinquante appel manqué boo xëyee suba bu dee sa xol am na dara ah sig mbaax boo xëyee suba di nga lijjanti kilo doon woo kan la di nga jënd crédit de wala nga dem jël taxi dem seetu ko hmm? sénégal nag ren gi lañu toll ci 144e appel manqué bientôt 145e <laughs> appel yàlla bu kenn manqué muy wote bu rëy boo xam borom bi ko de borom wote be ko njëkk a màggal moo ko ndax ba mu ne këlay leen doyal mu ne kaay leen doyal mu ne ñëw leen mu ne dikk leen lu mu si teg jaa a jël na arab nag jaa a mooy dikk na lan moo dikk mu ne amrul azam mbir mu màgg màgg moo ñëw kon woote bi tuutiwul de <laughs> bu leen ko tuutil de ah yonent bi moo amul lu tuuti démb ba mu ganee àdduna dafa rot rek aj bët yi kaw asamaan di xool <laughs> mu jaaxal ñëpp mu jaaxal ñëpp lu tax liir gane àdduna rek aj bët yi imaam Busiri moo leen moo leen si génne raamixan tarfahu ila sama aynu man sha'nuhu ulowul alaaw abla yaa ngi may seetaan de hmm. tarfahu sama hmm. Hmm. ah ba mu ganee àdduna aj bët yi di liir bu tooy xeb judd rek aj bët yi xame wuñ ko ci liir liir bu juddoo deewut lu mu lekk <laughs> ah? waaye dafa root rek aj bët yi mu jaaxal araab yi imaam Buseyri ne leen bu mu leen jaaxal lu mu la ko wax شأنه aj bi mu aj badi bu mu leen jaaxal dafay firi ne liir bi, liir bi, li indi kaw rek la jëm <laughs> moom fu mu jëm kaw rek ku bëgg jëm si kaw àndal ak mom, li indi kaw la jëm ku ànd ak mom jëm si kaw moo tax woote kaw rek la jëm buñ ko tuutalee bàyyi laaya ko màggal boppam moo ne jaa a dikk na amrul azam mbir mu rëy mbir mu màgg ñëw na hmm? kon buñ ko xeeb de mbir mu màgg ñëw na muy xew ci Cambérène ak Yoof ak Ngor kañ le 30 le 30 ak le 31 janvier fii si Sénégal woote boobu nag waa pikin moom la ñuy waajal waa Pikine moom la ñuy waajal kañ le 10 le 10 bii di ñëw novembre xam nga yonent bi alayhi salaam dafa ànd ak bis ak saxaaba yi di dox di dem si mbedd màkka yi saxaaba yi topp ko muy dox di dem di dox di dem ba mu yàgg mu yem si benn montagne bu ñuy wax jumdan, daan montagne bu ñuy wax jum mu daal di taxaw saxaaba yi taxaw mu xool montagne bi fixé montagne bi di ko xool ba mu yàgg rek mu yëkkati loxo yi ne sabaqal mufarridun <laughs> ne sabaqa sabaqa raw na sabaqa texe na sabaqa mucc na kan mu ne al mufarriduuna lan mooy mufarriduuna mu ne tuddkatu yàlla yu góor yi ak tuddkatu yàlla yu jigéen yi <laughs> ah xam nga lu tax montagne bi ñu tuddee ko jum daan mooy montagne bi dafa isolé wu mun faridun anil baal yi dafa isolé wu si yeneen montagnes yi mu ne ni montagnes yi isolé isolé woo noonu moom montagne boobu tudd tuddkat yàlla yi góor yi ak tudd tuddkat yàlla yu jigéen yi noonu la ñu isolé woo beru ci lépp luy àdduna beru ci lépp luy lix dem jëm si kalimatu laa ilaaha illallah <laughs> montagne boobu nag li ko yonant bi jokkar bi di ko tudd di tudd tudd ko yàlla yi par benn par Lalu par benn loolu mooy waxtaanu le 10 incha allah <laughs> waaw foofu bi dama koy tëj fii rek ba le 10 <laughs> allah la la yonente bi wax montagne beeg tudd ko yàlla yi li montagne di jëriñ yep ak li tudd ko yàlla yi di jëriñ <laughs> montagne dafa am solo de ah solo bu montagne am rek ci kaw suuf rek. tudd ko te yàlla yi góor yeeg yu jigéen yi am nañ ko ci kaw suuf ak feneen tax la diis yàlla na si yàlla yóbbu <laughs> bu ko kenn tardé de ah woote boobu nag moom lañuy waajal aji booda iya laay mooy ban ba bàyyi laay woote moom la yoon neen woowe woon waa Makka ak waa ba ko yonent bi waxee démb sa Makka ba tey déggaatuñu kuñ ko fu wax ku moo ko baam woot ajiboo daa iya laay mooy Bamba Mbaay laay woote woon dafa leen ni loxo yi ah. jox baatu tawxiid baatu la ilaha la ilaha illa law kam xayril anam lay jox alayhi salaatu wasalaam ay le 10 waaw le dana neex de yaanan si yàlla yóbbu ak jàmm Pikine di ko waajal xool nañu nag si diine ji ay jàmbaar si ji ay jàmbaar ñuy liggéeyal diine ñenn ñi Serigne Thier laa dina si ñëw si programme bi ñu fas yéene leen décorer décoré ndax seen jàmbaar ñenn ñi génn àdduna di ay jàmbaar ñu fas yéene leen rendre hommage waaye ren nag bu leen fàtte ne lancement appelu ren bu Pikine bi xalifa bi moo ko moom xalif général des Layènes <laughs> xam nga ne Baye Sidi Coow bosom jàll na Baye Raan bosom jàll na Chérif Ousseynou Laay bosom jàll na ah, maam Ibulaay Seeni bosom jàll na maam Duudu seeni mooy daaw ren nag xalifa bi moo ko aye moo ko moom ñuy xool tamit jàmbaaru diine ji ñu leen di rendre hommage ñi génn àdduna ke si jiitu nag ku ma siy wax rek ci ñëw si ñu si des mooy Boubacar Joseph Ndiaye sa gore ah wallaay Boubacar Joseph Ndiaye kooku laayeen yépp war nañ ko delloo njukkal Boubacar Joseph Ndiaye <laughs> mi ngi gën a àdduna le 15 octobre 1922 génn àdduna 6 février 2009 at bi Serigne Ousseynou Laye génn àdduna ñu denc ko ci Cambérène fii à l'âge de 87 ans yu manqué tuuti hmm? ñu jox ko maison des esclaves bi 1962 maamam direct di soxna Michel seen soxna Michel seen mi nga xam ne moom la yàlla wanoon bi leer gi di tuxu jóge màkka dal ci xunt mi mu ne ko jàkkte boobu lu ndaw la gis ko bi jamono di dem ba mu màgg ba indi Seydina Limaamu gore mu daal dina dégg naa am na kilifa gu ñu fi indi xaaral ma ñëw xool ko

ma ñëw tey moom tey dañuy mosal rek lépp fële la la diis tey moom dañuy dañuy coq coqat rek dégg nga hmm? <laughs> waaye Boubacar Joseph Ndiaye Ablaye Layeen yépp a ko waroon delloo njukkal ndax dafa wane boppam bërëb bee di bërëb bu Seydina Limaamu si Gorée da ko ñoŋal moo ko garde tey bu ne dégg ngeen ba tàyyi si Gorée mu taxaw ne fii Seydina Limaamu rek moo fi jaar te bu ne woon keneen jaar na fi tam ñu gëm ko mbir jaxasoo ci sunu bopp waaye wax na ba tàyyi ne fii Seydina Limaamu rek moo fi jaar wane ak laayenam nag dana wax naan je suis musulman et membre de la communauté laayen moo wax <laughs> wane boppam ne moom bàyyi laay la gëm loolu moo ko sawe nag bi mu génnee àdduna ñu indi ko Cambérène waaye bu ne woon tekk ba génn àdduna moom nitu international la bu ne kon defal nañ ko monument <laughs> <laughs> déet wallaay waaye waaye dundul loolu gëm bàyyi laay la dund moo tax mu wane boppam ba ñu indi ko fii Cambérène waaye bu nu wane wul woon boppam rek ñu ñàkk ko loolu moo am <laughs> ah keroog xam nga demu si naa li maamu gore benn bis dañ ma mës a invité rajo man ak ab laay Diouf bu caaray yal na yàlla yokk ay leeram dañu waxee jaar jaaru Seydina Limaamu bi fii ba gore dafa am ku dugg ci téléphone bi ne waaye yéen yéen lii yëpp xaw na xaw na ci Sénégal ndekete lii yëpp <laughs> noo ko lii yëpp fii la xewee de mu ne lu tax du ngeen ko wax bi bàyyi lay wootee mbokk yi kalaame ko ak tubaab yi ñu ne dañ koy sànq génne ko waaye lu lay wan ne bàyyi lay mooy jàmbaar ba muy dem gore mu ngi fi bàyyi ay noon ànd ak ay noon dem fekk ji ay noon waaye ba mu fa defee ñetti weer jóge fa bàyyi fa ay ay soppe ànd ak ay soppe fekk si fa ay soppe <laughs> waaw Ablaay lu xew tey <laughs> ah, waaye dégguma la benn yoon ah xoolal ma loolu rek bi muy dem ah, ah waay waay hmm? jàmbaar dëgg tubaab yi ne xool leen ko xool leen seen maam li maamu xool leen ko dootu leen ko gis dañu koy sànk mu ngi jëm Congo wala Belgique xool leen ko ko bëgg a xool xool leen ko doon leen ko gis ndeysaan laayeen yëpp di jooy tefes gi ñëpp di jooy jël jël Sawa bàyyi laa dalal seen xel ne su ngeen demee ba séenatu leen ma wi gaal séenatu leen catu gaal gi xam leen ne duma rasulullah ah. noo ko dégande jaxal xayar suma di

ba mu jëmee gore xam nga lu si gaa yi xamul mooy sedd Seydina Limaamu tubaab yi yóbbuwuñ ko woon gore jubluwuñ si woon pour yóbbu ko gore waaye moom moo bëggoon dem gore moo am mission gore ndax sëwe jaam yi ndax comme mooy yonent xeet wu ñuul te fa la ñuy jaarale jaam yi di leen jaay mu am fa mission ba mu fa def moo tax ba mu fa jógee ñetti weer la def statue de la liberté fële sa Amérique ne arrêté nañu jaay jàng fii la ko liggéeyee ci Gorée <laughs> hmm? tubaab yi dugal ko ci saal bu rëy ne dañu koy photo <laughs> Seydina Limaamu n'a jamais pu être photographié kenn mësu ko photo <laughs> photo du ko jàpp tubaab bi def nañ lu ne appareil bu dul appareil jinne teg nañ ko ko bu ñu tiiree génn mu weex tàll kero ba ñu ne nanu photo bàyyi laay di ko xool moo bari kenta dane leen kenn duma gis taxandeer ba amul taxandeer moo tax kenn mënu koo photo <laughs> waaye Ablaye la mu def gore yëpp ah ba na mu fa ba mu fa jógee loolu dinañ si ñëw incha allah lépp la la la lan la kañ lay xew le 10 waaw kon bu ko defee dañuy tënk foofu wax ji rek incha allah ba le 10 waaye ñu ngi ziyaar tamit di ñaanal bu baax Seydina Mandione ibnu Serif Abdoulaye mi nga xam ne bis bi moo ko yàgg di ko prési di ko présider yàgg si di ñu jëmmal di ñu ñaanal chaque at ba tey ren mooy dixième édition bi ñu nga koy ñaanal suñu borom guddal fanam te may ko wér bu ko defee sëñ Ablaye waaw nga daal di doxantu rek bu ñu paree ñu jox sëñ Thiar mu daal di euh, dugg si programme bi incha allah bisimilah.

أهل لاي أبدلوا بي mam libaas na nazaw bi min huwa yamin wasimal gëm maa ngi nii naan

ni waaw mënuñu maa damm ci Abdoulaye waaw baykat gàncax mu naat waaw bët muy xool la leer ci moom waaw gàtt naa sama bopp cofeel yéene ko bay ci Abdoulaye Abdoulaye Diop baale sunu baay yaboo